mbokk yi asalaamaaleykum dal leen jàmm ci programme 5 TV waxtu yi jot na ngi ñu faram fàcce leen di gën a fës ci xibaar la ca gëna fess fës naka dañ koy doré ak libération yene kay momi xey rek di delu ci wàccee ci dorog bi nga xamné rek tegoon nañ ko loxo ci cité mixta bu Grand Dakar ginnaw rek xibaar yi ñu jot am rek journal bi ñu xamal rek ne amna ñepp taxalu jigen yo xamné rek dañ leena a euh, dal di leen di tek comme jaam rawatina rek guddi bu jot ñu leen di tëddee nak mbir bobé nak kiko siwol moy kenn rek ci ñom ki nga xamné rek tegoon nañ ko loxo lolé tax nak ñi di wa parquet bu judiciaire bu dakaru nak dañ ni ubi ab l'enquête judiciaire euh, soxal ñi nga xamante rek jot nañ leen lim ci mbir bi di Mbacke Lo Cheikh Ndiaye Ousmane Sarr naka Baye Cissé Lam ak ki nga xam ne mooy Bismillah Fall ñu waxaat leneen lu soxala yokkuteeg courant bi rek observateur dafa xëy rek di indi si ay leeral nee na rek ginnaaw rek bu coow li amee boobu ba tey rek dañoo jàpp ne ñii di kuréel bu ñu denk wàllum courant bi dañoo pat pataaral di donte sax fan yëpp ñu ngi gis ay manifestation ak ay débat nag ci télé yeeg rajo yi rek niki démb nag président Macky Sall nag wane na meram rek jëmale ko ak ki nga xam ne rek moom lañ dënk kuréel boobee wax ji nag mu ngi koy indee rek ci conseil des ministres rek la jëmale kàddu yooyu yooyu wax ne rek ki nga xam ne mooy Pape Demba Cissé rek waroon na ci def ay jéego rek laata mbir mi di ëpp loxo ndax gis nañ ne yokkute courant bi buñ ko xaymayoon nag ci ay wax rek wala ci ay def rek na bañ a indi ay coow ci réew mi. le dafa xëy rek di wax ci wàllum projet de loi bu soxal wàllum criminalisation des délits sexuels le journal mu ñuy xamal ne ni ki démb nag njiital réew mi Macky Sall nag daal na signé décret boobee rek te mu ko bindoon na nag ci le 2 décembre 2019 ñu ba pare teg si ay fan rek ki ne mooy jawriñ bu ñu yoon rek dina ko jottali ñi nga xamante ne ñoo waaye assemblée nationale ngir ñu mun ko voté ba pare rek daal di ko jëfee ci tribunalu Sénégal yi. ñu waxaat ba tey ci wàllum yokkute courant bi nag ñii di centrale syndicale bu Sénégal nag le journal quotidien mu ngi xamal rek ne dinañ amal doxu ñaxtu rek jëmale ko ci lu soxal wàllum yokkute courant bi waaye tamit nag daal di fàttaliwaat ki nga xam ne mooy président Macky ci mbépp mbébét bi nga xamante ne waxoon na ko ngir yokku euh, salaire yi ci nga xam ne ñoo nekkee ci wàllum privé bi waaye tamit rek daal di ñaxtuwaat libération Guy Marius Sagna waaye tamit lépp loo xam ne rek dundu la te ñu yokk ko rawatina li nga xamante ne tamit mooy matériel yi ñu liggéey le journal enquête nag moom dafa xëy rek di wax ci njuuj bi nga xam ne rek moo am ci këru Senelec bi nag yenn kaay nee na rek presque weer a ngi ci seen jafe-jafe yi boobu ba tey rek jógewu fi te nee na kenn tegu ko kuddul ki nga xam ne moo fi nekkoon njiital Senelec di Mouhamadou Mactar Cissé rek ndax buñ jàppee ci ay waxam rek toogoon na fi ay fan nee na rek Senelec du ñu am benn problème ci wàllum xaalis daal di waxaat ne rek Sénégal du dina toog ay at yoo xamante rek du am problème mu li nga xam ne mooy courant te ñu seetloo rek fan yi yokk nañu courant ba dëkk baa ngi lëmb ñëpp ngi euh, manifester ndax loole ñu jeexale ak tàggat yaram wax ci wàllum meilleur joueur bu atuma 2019 nag ñii di waa Priso foot nag bu France nag daal nañ nommer suñu international bii di di Sadio Mané meilleur joueur la l'année ak ñii di waa SFC naka daan nañ ko nommé waat rek ci kanamu ki nga xam ne mooy Van Dijk ak Cristiano Ronaldo ñu wax ci wàllum làmb nag mbur bi di Papa Sow nag te nekkoon ci écurie bu Fass nag daan nañ ko fa génne ba mu set wicc nag combat Modou Lo ak ki nga xam ne mooy Ama Baldé promoteur bi di Luc Nicolaï nag daan na jël dogal rek ngir tëgg làmb jooje waaye ba tey nag seeni réglage ak CNG nag jeexagul. mbokk yi xarit yi fii la ñuy yem ak yéen ci li gënoon a fës ci xibaar yi seen ndaw Aminata Koor moo nekkoon ci wàllu moom présentation bi Maguette Dieng ak ñi lan fa ñoo nekkoon ci technique bi ñu leen di ñaanal yéen doog